ñu dooree ko ak lamb ji démb Baye Assane xam naa moo dina la woon affiche bi Balla gay ak Tafa combat bi coow li bari woon na waaye mujj na ci Balla duma na ko daan na ko gannaaw gi am na coow ci mbiru empereur bi gën a defee am ak nangam ak sàngam lu nekk daal wax nañ ko waaye dama lay bàyyi nga jàngat combat bi. waaw combat bi de soxna bu am na solo. Mhm. muy lamb ji amoon démb. Tapha Tine nag wax dëgg yàlla def na li ko war lépp. Mhm. ñun moom ñu koy encouragé bu baax a baax. te di ko ñaanal di ko wax ni ko jurul sax muy entraîné waat na xolaat beneen combat te jël ko. Hmm. te it mu jéem fee bàyyi kii nga xamante ni mooy Balla Gaye 2. Hmm. ndax am na ñoo xamante ni buñ la xisee jekku si làmb leen jekku nañu la mënoo si tus. Hmm. comme moom Bombardier mii Bombardier fii ba ba muy kii sax boo ko joxee tafaatin dañ koy nangu si ay loxoom. day dóor gauche droite gauche droite te à part Bombardier daanaka tafaatin doo gis mu dóor gauche droite càmmoñam bii du ko dóor kenn ku dul Bombardier ndijoor bii du ko dóor kenn ku dul Bombardier. ñeneen ñi nga xamante ni dana leen dóor il faut mu mu songoog yow kor la téye ba mu dëgër mu doog a arrière nga xam ne day xaaj ci dóor doo ko dóor loolu nag il faut moom mu gën a nàmm loxo yi gën a neexal loxo yi gën a gaawal loxo yi. kan moom tafaatin. tafaat pourtant loxo yi neex na loxo yi neexut dóor na fi nit ba ñut koy mbokkam. ba mbërjee hmm? ak Elton. ak Elton waaw. mais ñi des ñëpp daanaka il mu kor leen xàcc ñu daw. ku demee ni ay booy ñaar ñooñu noonu. Hmm. mais li ko war moom def na ko. léegi nag man combat bi li ko waroon lépp def na ko mais bi mu ñëwee ba arbitre soufflé si la réer carrément man jamono jooju arbitre soufflé ku ma joxoon tafaatin dama koy daan. waaw bi arbitre soufflé kon nag foofu Balla yaakaar naa ne doyut léegi ñu ni Balla di daan na tafaatin dikkaat na loolu doyut il faut que ñu joxaat ko yeneen combat naa jël si combat ah, jàng waaye doon jàngat nee na waa ji dikkaat na de non non dig daan tafaatin ni mu daanee tafaatin dikkaatut ni mu daanee tafaatin tafaatin nga gis ko muy muy bëre ba yàgg muy def nii mel ne kuy xool heure di def nii ñaari loxoom lewaatu ba yàgg mu def nii ñaari loxoom di def nii. <laughs> dafa kooku kooku kooku kooku man. waaw geste boobu jaaxal nañu bari. man boole woon moom dama koy daan damay daan tafaatin. ngay lim doon xool eh. naan nii loxo yi di di ñaari loxo yi bàyyi Balla Gaye muy lewaatoo kon Balla Gaye mënoon na koo dóor mu daanu mënoon na koo def ndax it lu lu waar la tafaatin nag soroy bu moom xamoon na ni kii tëgg làmb ji Balla Gaye la jël taaj ko si palaato bi ni ko soxla Balla Gaye ñoom ñoo woote laaj. ñu soxla nañ ñun ne ñëw leen ñu jël mhm. xamoon na ni Baye Aara Ndiaye ñoom ba Baye Ndiaye ñoom ñoo tëgg làmb ji mhm. seen ay millions lañ si jël teg lii nga xamante ni mooy empereur bi ñu jël ay millions lañ jël def ko ci ba pare jël salaire teg ko si teg def ko ay moyens yu bëree bëree bëree bëri loolu nag bu ñu ko defee defuñu ko lekk comme ça dañ koo def nii bu ñu ko defee dañ koo def pour ni Balla gay 2 mi seenum Balla Gaye 2 la bëgg nañ ko teg si condition yu baax yi bëgg nañ koo defal lii bëgg nañ koo defal lii Balla Gaye moom nag ñu jëlaat ko entraîné ku jël ay million def ko ci moom ànd ak moom yóbbu ko këram ngemb ko indi ko si làmb ji lu ne mu daj ko ci moom kooku bëggul mu daanu nu mu mën a def ba Balla Gaye da daan dana ko def te loolu war nañ ko koo nangul ñun ñuy seetaan mais ñi nga xam ne ñoo ànd ak war nañ koo nangul Balla gay de ak Aziz ndax mënoo ni nit ki kat yaay do xam nga li xew am am man ñi may gis sax ñuy génn naan non Aziz Ndiaye daa faral Balla Gaye man ñooñu laa xamul man lu ñu xalaate kii nga xam ne moo yor Balla sama mbër a ngi nii man maay ma ku ko ñemee ma tëggal leen yéen ñaar nga gis moo koy indi si làmb ji chaque jour yor ko këram di ko defal lépp nga ni moom la faral bañ a kaa faral. nee na néeg yaayam la ngémboo sax. waaw. moom la faral néeg yaayu Aziz la Balla ngémboo loolu kay lu lu lu yenu maanaa la yow kay yow yaa war a xam ba xam da nga ñime nga. Mm. am nga fitu dugg si kii nga xam ne daa farak kii wala amoo fitu dugg si mais boo amee fitu engagement ni jox leen ma ko wax dëgg yàlla waratoo faa nekk naan da ngay faraat fërut Aziz lépp lu mu mën ci combat bi pour Balla Gaye daan def na ko lépp lu mu laaj def na ko bu Balla Gaye de daan na. mu mm. sol li tax yow jàngat boo def ci tafaati lu tax saa yu jàkkaarloog Balla réer. waaw mooy mooy li ma la wax ku ko dëggoon fit bi dafa jël dafa jël fit bi wala lan euh, tafaatin loxo yi moo doxut. loxo yi waaw loxo yi doxut. il faut mu fexe loxo yi ah, dox. na Assane. non dóor boobu dóor na. dóor boobu bu doxut du dóor. non non boobu kiiwul. war na loxo bu dox loxo bu dox doo songoo bala ngaa songoo nga koy dóor pourtant boo seetloo premier acte yi hmm. ba ci reporter yi man ñu ma jaaxal leen nag hmm. parce que Tafa moo amoon ba jàpp ñaar loxo yëpp ñu ne ah Balla mi ngi ci kii parce que Tafa fi mu toll nii ñaar yëpp hmm. ba téye léegi loxo yi doxul nu muy jàppee non jàpp ak dóor loxo yi téye wuñ loxo moom bu doxul du téye non non dañ naan loxo yi bu mu dóor mais jàpp gi kay wax wérante weesu ko jàpp gi kay moom jàpp gi dóor na non non dóor kay tak tak tak tak loolu mooy làmb dóorante ba deret ji tuur ñoom ñaar ñu ànd di dem mais kenn nit jàpp ni di dóor loolu moom wax dëgg yàlla du doy waar la te tafaatin dóorkat la kon daal en tout cas làmb ji neex na nit ñi ñëw nañ si jàmm. teel naa tas ñibbi nañ si jàmm. Hmm. jeex na si jàmm déggaguma benn histoire bu am ci làmb ji. d'accord kon nag nañu góorgóorlu bay teel a tëgg làmb ji nit ñi di teel a ñëw muy teel a fees nit ñi teel a ñibbi si jàmm en tout cas ñu ngi félicité euh, ñi nga xam ne ñoo tëggoon làmb ji en tout cas neexoon na lool daal macha allah so yu. jërëjëf. alaaji mm. noo gisee li nga xam ni moo am euh, gannaaw làmb ji euh, am na nag ay coow yu sew yi am ci coulisse bi gars yi lu nekk wax nañ ci empereur bi gën lent bi am ak par parloo gi dama lay bàyyi rek nga ñëw kon ci sa jàngat yow itam ak euh, defetu Tapha bi pour yow lan la ñaari yoon. waaw tout d'abord di wax ni mm, ñu ngi ñaawlu làmb ji. ñaawlu ci li nga xam ni noonu lañuy jëlee li nga xam ni mooy làmb. Eh, def ko format boo xamante ni tey sénégalais yu bari yi nga xamante ni làmb ñor na leen nga xam ne ñoo puus làmb ba mu yegg si fii mm-hmm. ñu ne leen waaye yéen amatu leen doole ngir seetaan làmb làmb daal léegi ñi nga xam ni ñoo am alal mm-hmm. ñooy ñi nga xam ni ñoo ko mën a seetaan mm-hmm. exclure ñi nga xamante ni bii tey eh, ñu ci bari dañuy jéem a def pexe bu ne pour jéem a seetaan làmb sonn ci lool di leen massawu ci léegi li nga xamante ni noonu lañ jëlee yëf yi yóbbu ko ci benn niveau boo xamante ni bii tey. Mhm. Euh, da ciy génne néew di doole yi nga xam ne ñoo dooleel làmb ba làmb yegg si fi mu yegg si tey làmb. lu mu ci génne nooy néew di doole. waaw ah, c'est que dootuñu la ko wan ci télé bi dangay def lépp ngir mën a seetaan. alaaj ñii dañuy business na waa dañuy business mais xam nga. dañuy liggéey nag alaaj liggéey xam nga parfois xam nga parfois. Hmm. dañuy liggéey mais parfois liggéey bi. Hmm. Euh, yàggoon na ñoo liggéey quoi làmb xam nga yàggoon na am. mais boobu est-ce que daawul am ñu ci daan jàpp te eh? jàppatuñ ca est-ce que amul ñu ci daan jàpp te jàppatuñ ca non ñu ci daan jàpp comment maanaam est-ce que nit daawul taxaw bësam am ku ñëw jàpp ceeg dara pour du diis moo tax mu mën a dem jënd bàyyi télé ñu wane ko mais su dee léegi yow yaa yaanu lépp mhm. est-ce que doo def ay pexe pour génn ci wala ay pexe lañ def ba pour génn ci mais en tout cas am na ñoo xamante ni bi ñuy téye làmb ba mu yegg si fii daal pour man bon victime lañ parce que ñoom ñoo doole làmb ba xam bi yegg si fi mu yegg si mhm. eh, ñu jël làmb léegi def ko mbir moo xamante ne bi mbirum business kese la mhm. boo xamante ni bi moo ci ne te boo seetee eh, yëf yi walangaan ba yegg ci ñi nga xamante ne bi ñooy acteurs yi mm. xam nga tamit parensaay dafa war a walangaan mm. ba yegg ci ñi nga xam ñoo kii mais boo jëlee acteurs yi daanaka ñi nga xamante ne bi ñoom la yëf yi di walangaan ci ñoom mooy mbër yu mag yi rek parce que mm. boo seetee sax même niñ la tasalee yëf yi xaalis bi ni nga xam noonu lañ koy doxee ñi bëri ci bis bi euh, nga gis ni nga xamante ne bi mooy écart bi nga xam ni moom moo ci am mm-hmm. mais leneen li ci ne di ñaawlu encore une fois ni ñu nasaxalee euh, CNG ñàkkal ko fayda waaw hmm. parce que ñàkkal fayda bi mu ngi démarré ci benn famille bu jóg euh, fekk làmb am loo xamante ni bi moom la yëf tudd hmm. ñu ne roi des arènes ñu koy bëree depuis de années ñu ne diwa ko gañe diwa ko gañe diwa ko gañe diwa ko gañe hmm. benn waaye mën a dem ca Chine defar ab couronne ñëw ne tuddee naa ko nàngam ñu ne lii mooy ëpp doole léegi yéen roi bi ngeen di bëre. léegi lii mooy li ko ëpp doole. CNG <coughs> nangu làmb ju mel noonu di am. parce que man pour man loolu jaaduwut làmb ju mel noonu wartu am parce que dafa am loo xamante ni warta jóge ci ab famille bu xëy rek daal di ne euh, yëf yi lii la. lii mooy li gën a kawe buur te lépp rek li ko waral. ñëpp xam ko xam ni dafa am koo xam ni moo nekk roi des arènes Euh, mënoo jot ci moom ngir mu bëreeg sa mbër nga ne naa ko contourner wan ko ne ko maa ko ëpp doole na sa nasaxal li mu yore. non ëpp ko doole parce que ah, CNG bi kii moo yor CNG bi. croix ah, bi CNG bi moo taxawaay taxawaay ful moo tax ma waroon a def parce que waruñu mën a organiser leneen loo xamante ni bi day wuyu ci turu làmb. Mhm. loo xamante bi dañ naan moo ëpp doole li CNG di organiser moom. li CNG yor maanaam couronne bi nga xam ne moo ko couronne bi sax nee na je pense que sax est-ce moom moo koy joxe sax est-ce que tamit yooyu yëpp xam nga mooy wan làmb déréglé bi nga xamante ni moom la làmb déréglé rek loolu yëpp dafa nekk loo ah, xam ne mais boo amee sab neexal nga tëgg sa làmb am nga droit ni am naa am neexal boo xam ne ku daan ma jox la neexal di la fay weer ba nga amaat combat sponsorisé la loolu la yeggaguma foofu de. yow nag ah. maa jiitu de. non maa ngi ci li loolu moo am ñëwaguma ci neexal li non laa nekk. non loolu moog lii ñoo ànd. waaw mais ci couronne bi laa nekk. waaw ñëw bul yàkkam. ma dama lay wax rek étape par étape. waaw ñëwal rek fi mu toll nii couronne bi ci boppam. da koy engrais bàyyi détail bi. <laughs> couronne bi ci boppam. moom laa moom laa ñaawlu d'abord parce que warta am CNG bu amoon fulla hmm. couronne bi du am xam nga CNG ñàkk fula gum ñàkk fula moo waral mu ne làmb ji heure sangam la war a tas. Mm. ñu débordé. Mm. te CNG keneen dina débordé day làmb ji day yeggaat fa mu jëmoon. parce que euh, boo jëlut say matukaay. Mm. def li nga exiger li nga xam ne moom nga bëgg. Mm-hmm. mais nii la def dañuy kii beneen yoon ñu grignoté benn 10 minutes beneen yoon ñu grignoté waat 10 minutes 10 minutes yooyu la jël comme bii mooy premier combat tolérance ah, xam nga ko toléré parce que da nga Euh, loi loi la bu xasee ba dal ci ay ñan boo nee lii mooy sart yi. mu am noo xamante ni bii demee na ko. dafa war yat wi daa war a dal pour les autres suivre li nga xamante ni bii mooy li nga teg. man su ma yoroon CNG mais bu yat wi dalut. su ma yoroon CNG euh, saison laa koy def. waa xam nga loolu. réforme yi ma bëgg a def yëpp. xam nga réforme yi nga loolu nga wax noonu. idée la woon xalaat la. waaw mais bu dee ñoom amuñu xalaat boobu ba wax ne nii la ñuy doxalee ci lii. Hmm. combat bu démb bi. bés bu idéal la woon pour li ñu bëgg teg ñu teg ko. Mhm. parce que bu fekkoonte ni démb doxalee nañ noo xamante ni bii tey war nañ ko doxalee son yi. Mhm. ñu ne heure bi jeex na moo xam mbër yi matal nañ wala mataluñ ñu arrêté làmb ji. Mhm. wóor na yàlla bu beneen yoonee mbëri yi ñoo lay gën a respecté yëf yi. pourtant nag avant bi vingt heures di jot. fekk na vingt deux heures stade bi daanaka picc nekkatul. waaw te da daan dem ba vingt trois heures minuit. waaw nit ñi doog a génn. Ah. d'accord na. Hmm. xam nga tane na mais dañoo grignoter ay quelques minutes. mais est-ce que loolu temps li nga naan xam nga yaa timing bi est-ce que du moo baaxul. timing bi même bu fekkee ne baaxul kon CNG kon léegi doy wane ni ña nekk CNG amuñu capacité. def calcul parce que bu ñu nee làmb sangam dafa guddee woon làmb sa loolu yëpp dafa war a nekk ci calcul yi. Hmm. xam nga tey làmb ji bu ñu la waxee ne la vingt euh, vingt vingt dix neuf heures trente la war a arrêté. Hmm. fekk boobu dugal nga ci loo xam ni sax loolu mooy bu demee ba sës. foofu la yëf yi di yem. maanaam ci calcule bi ngay calculer combat yi war a mhm. mais gis nga même bu fekkee ne demeewul noonu combat yi gaaw na sax mënoon naa jeex 18 heures ngeen ñibbi. waaw combat yi ñoo yàgg. comprendre waaw loolu nag dañ ko waroon a calculer. Mhm. loolu dafa waroon dugg ci calcul bi. ñu ne combat bu yàggee match yaa ngi nii dañ koy programmer dañuy wax ne prolongation dañ koy suivre match yu war a am prolongation mais dañ naan heure sànga parce que dugal nañ ci prolongation beeg yëpp. Mhm. CNG noonu la waroon a def ci làmb ji dugaloon ci li nga xamante ni bi moom mooy. prolongation yeeg yooyu yëpp da ko waroon dugal ci biir yëf yi maanaam làmb ji yàmb yi débordé yooyu yëpp da ko ci waroon dugal ba noppi rek soo ko joxee waxtu daal di xam ni yàgg yàgg mënut a dee heure sàngam mu ne heure bii nag leneen lu ci des xawaare la làmb ji day arrêté loolu mooy li nga xamante ni bii mooy euh, deuxième léegi nag bu ñëwee son bi gis nga. waaw euh, lii Aziz Ndiaye def. Mhm. jarut ngandal. gaa yi yàgg nañ koo def. trophée bi lii mu ci toog teg noonu hmm. gars yàgg nañ ko def yàggoo dégg ñu ne la mbër sàngam ak mbër sàngam ku gagné après di nga am 10 millions de plus loolu def nañ ko fi Sénégal yàgg nañ ko def waaw dañu wax ne ku daan ki daan dina am 10 millions ku daan mën na am oto ak nàngam loolu yëpp yàgg nañ koo def léegi moom ni mu ko defee sax léegi bu nee salaire 6 mois mhm. yor na loolu xam nga loolu yëpp calcul bi xam nga ñaata la hmm. xam nga calcul bi ñaata ñaata la euh, loolu yëpp 9 millions la ci yokk rek. la ci yokk parce que li mu wax ne moom lay fay mbër mbë mbër mi. 6 hmm. mois lañ lay fay boo xam ne weer wu dee ñu fay la 1 million léegi loolu boo calculé 6 mois yi ñaata la. ah lay fay sax weer ah. loolu la wax. non non la wax dana 6 mois mbër mi daan nee na dina am 6 ki ñu daan dina am euh, loolu nu mu tuddati 500000. Euh, par hmm. mois. Hmm. pour couronne bi léegi calculer loolu lépp 6 mois ñaata la léegi du 6. six yi ñëwaatal joxel ki ngay jox cinq cent mille du trois waaw du nekk neuf million maanaam ki daan ak ki ñu daan yëpp fii ak mois neuf millions la hmm. yaa ngi dégg loolu la toftal ci mbir bi mais bu la waxee ne la dinañ ko fay salaire six mois xam nga téeku foofu te defoo calcul ko fay sa boo defee calcul yi da ngay gis ni ñoom ñaari. mais innovation la ni mu ko ak ay saaku ceeb ay. ceeb mais innovation la ci ni ko defee alaaji innovation la. maanaam sponsor utal la sponsor boo xam da lay sponsorisé topp la. <laughs> non non jox la ay jox la ay sips la xam sa famille. sips man dégg nga gis bu suukar <laughs> ay suukar ak ay. la. ala ah. mbërëg sips ko ah. ah. ay say doom xaw ma bu bëggee xaw ma ay karaak xaw la lan. nga fa gis <laughs> yooyu mooy yi nga xamante ni mooy kii mais son yi bu c'est que li nit ñëpp warta warta nangu. xam nga lan la nit ñi war sa nangu waruñu nangu ñu nit ñu yor roi de arènes yow nga dem ba sa mbër ñàkk ko hmm. nga bëgg a créer leneen pour contourner li nga xamante ni bi moo fi ne pour yokk sa mbër c'est que loolu mooy li nga xam ne moo jaaduwul tafaatin nag sama bi li nga expliqué sànq ci wàllu bëre bi hmm. xam nga xam nga tey tafaatin hmm. li nga xamante ni bi moom lañ moom lañ ko doon fay sax mën naa doon ay saraxi baal yoo xamante ni bi moom lañ koy jël parce que yow yaa dugg ci cirque boo xamante bi dañ lay maîtriser <laughs> mën na am ni moom Tapha moom liñ koy fay ay sarax la yu war war a génne. ñu ko koy jox. Alaaji Modou message naa dégg nga. <laughs> Ah, message naa la. Alaaji dégguma la maanaam saraxu. Balla lañ ko fay. mën na ne. billaay sarax yu Balla bara génn léegi sarax yi après xaar rek rek ay kii yooyu fekk ay sarax baal baal bu dee ñu ne ko lii nga sarax ko mbër mbër moo xamante ne xam nga tey jii sarax ko mbër mooy bëree xam nga loolu yow. alaaj loolu noo ko mën a xalaatee maanaam nan nga mën a jékki-jékki dugal ci sa bopp bi. génne ay sarax génne ay sarax ñi ñi tëgg làmb ji ñëpp bala lañ àndal yow léegi ngay bëree moom. léegi bala bu nekkee ne dañuy sarax lii ak lii ak lii est-ce que mënuñu dajale loolu di ko di verser tawa tawa moom di naan damay jëli ji sama kaa booy jëli lii fekk saraxi bala lay lekk fexeel ba mbër bi lekk sa sarax rek. même si yi nga def si gàllaaj ñoo la yi nga def si gàllaaj yëpp ñoo la ko jox mais si yi ngay def sa gàllaaj ak bidon yii. <laughs> waaw parce que waa kër gi dafa mel maîtriser nañ ko de. Hmm? waa kër gi maîtriser nañ Tapha daa war a génn si ñooñu. Ah, waa kër du double kii waa. Aziz Ndiaye maîtriser ko kay. maîtriser ko yàlla. Hmm? Hmm. parce que ta xam nga ñëpp ngi ne wax ne Tapha nekkut. waaw man bëre saa yi du ne. waa léegi mais pare saa yi am na tarax gàllaaj bu yow. <laughs> alaaj nag yow lu nit ñi dul xalaat rek ngay wax. <laughs> léeg-léeg ab ab droit bi tegu saako ceeb. waaw <laughs> ni ko nee moo ko jàppalee si làmb ci. waaw <laughs> muy nuyul ma ko kontaan na. yow kii dem ba dem entraîné ji xaw ma fan yën réew Tapha Tine nga naan. waaw man man man entraîné yooyu yëpp mën na ko def. mais xam nga mbër yi dañuy génn sarax te comme que yow ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy joxe ay sarax dañ naan dañuy dépenser pareen saay dañ naan la dépenser naa ci combat Balla vingt millions nangam ci mystique cinquante millions léegi loolu bu buñ ko defee ay ceeb woo mbër mi ne ko moom lii dañ leen ko jàppale ci combat bi mbër mi dem di ceeb di di togg ay ah, kii ah. lu mu mbaxal fekk ma ngay lekk saraxi Balla lay lekk wurut man de tabaati na ma gën a dal xel comme que lii la ñu jëlee de wax dëgg fa yàlla ku yebu de ku yebu tàcc ko sax ne ko. max jàmbaar la ma ah, jàmbaar la de. yàlla. nga ni comme lii la ci jëlee sant yàlla. na sant yàlla. te pourtant nag Tafa est que xam nga ku jël. Tafa day nekk. day ah, dóor ah, day fente. day def yëpp. fa <laughs> la ëmm ku bu ñu ko dugal Tafa maîtriser boppam ba daan ko. waaw boobu xam nga ëmm kan moo tëggoon làmb ji. Hmm. kii ko tëggoon du supporter ëmma. waaw mais ki tëgg itamit. nekkul supporter ëmma dafa tëgg rek ëmma ji wut kër. Euh, kiiw promoteur bi. defut loolu la bay tudd néeg yaayam waaw bay tudd dugg néeg yaayam ak affaire yi xam nga yooyu yëpp amut. yaa ngi dégg ah courant bi ki ko indi ci boppam la ko njëkk a teg soo ko teg ci boppam mu bërëm. <laughs> ku doon empereur moom xam naa ne ku bëggoon a nekk empereur la moom ki doon tëgg làmb ji moom. <laughs> non kay empereur la il faut Aziz il faut ñu invité Aziz mooy empereur mooy empereur laa faaw mu ñëw ci ngeen bokk. Ah, mais empereur. faaw mu ñëw ci ngeen bokk. am seen de xanaa am taxaw na. Bal ah? taxaw na kan. ama Bal. Ah. taxaw na kañ. kii lu ko dal. Hmm. Aziz Ndiaye na ko démb. non dañuy dina ko wutal semaine bii. taxaw na. wër na yaa bu taxawee kii kuréel ba. ah kon nee na nee na ci semaine bii dinañ de dinañ dinañ. Ah, wax li wax ni bon peut être moytu. déedéet ëmm ëmm maîtrisé na leen ëmm. ëmm kay maîtrisé na leen. Aziz nee na nee na ci semaine dinañ ni Balla dinañ wax combat bi mais moo wax na ko nee na woo na leen. ëmm ëmm ëmm kay dégg maa ko dégg mu ne ginnaaw jël naar roi des bi na boobu ñëw ma jël moom itam dañu woon. dina war dem procureur boole Balla Gaye te dootul bëreeg moom ndax dafa sulli bàmmeel waaw waaye day jëli lee ne nee dootul bëreeg moom affaire boobu lay jëli non Amadou Ba moom mi ngi la jàpp boppam rek ne dootul bëreeg moom génn na ah, naa ko de parce que daal mos naa waaye na moytu kii daal <laughs> non moom maîtrise na daan na saa kees daan na Balla Gaye ñaari yoon daan saa kees ñoom koy ñoo doyal gu waaye ëmma moom saa bu ñëwee xam na <laughs> ku daan bala ñaar daan saa kees. kon Tafa jàmbar la. ah jàmbaar la génne na ci di. ba Tafa bëree wutoon ak bala kese bi. ñu doon bëree kii ba yëpp la doon bëree promoteur yaag ñëpp la doon bëree. promoteur yaag magu promoteur yaag rakk promoteur ñëpp la Tafa doon bëri. sport gaa yi di ko jox ay keek bu ñëw naan ñii dañoo baax quoi gaa yi di indi ay keek gaa yi kii ndege <laughs> kii naan vraiment ñu naan ko lii spaghetti j'adore mu naan oh, la spaghetti j'adore bi de dañ ci mun a tufe bu baax waay jaajëf waay Aziz daal ndaanaan la dëgg ay sarax rek sarax ngeen bàyyi xel la lii muy def nii humour la day humour mu ko nii déedéet waaye li am na de. déedéet ah? ay sarax yi Sador dëgg fa. waaye jox nañ ko ay diwi Sador ak yooyu yëpp <laughs> jàppale ko ko. dañ ko ko jàppale waaw. am na jox nañ leen ceeb ak diw ak yëpp gisoo supporter tabaat yi ni ni ni seetee ceeb la. defuñu dara bi combat bi jeexee buñ jël amee sax kenn jógut kenn jógut. kenn dara yow lu ngeen wax da ngeen <laughs> ñëpp dem nañ ci jàmm ak salaam. ci porteur yi ak ñëpp kenn baru. sedd guy lañ ñoo leen jàppale. ay alaaji mais Assane nga moom. ah déet damaa gis noonu la seetaan man kay gis naa ñu ay seewa naan léegi ah, ñu ngi gërëm Sador xaw ma jox nañ ñu seewa yi ñu war a def suñu gàllaaji ak bitéel yi ñu war a def suñu ah. gàllaaji dañ leen a séddale ay sewa yoo xam ne dañ see affaire bi ñëpp mbër yi ñëw ñu jox la sewa yi dafa moom jàpp moom gàllaaj yi bu ko ci sottee war naa toog ah, am nañ fu ñu jàppoon bu ñëwee ñu yi nga def ko ba pare alaaji la première fois que yàgg mu jënd gàllaaj yi sànni waaw gàllaaj yi da ko doon jam di ñooñu am nañu lay dafa <laughs> ñu ngi lay nuyu ñu lay fonkal mi mu doon boxeur boxeur bi mu fa ënd gis naa ko xam naa ne bi mu gisee affaire bi jaaxal na ko am na waa ju ne xuma tubaab boobu kobaay la doon def ci. kooku bu ko tafaatin masaan dóor day bëgg a toog. kooku bu ko tafaatin masaan dóor. <laughs> beneen problème am na nag. ki mel fi xam naa xam naa xam naa Aloyse la. Aloyse la ayoo kon mbokk yi ñu ngi noonu ñu ngi jégalu bu baax loolu premier sujet bi Tapha Tine ñu ngi lay nuyu di la ñaanal yàlla beneen yoon boo amee combat yàlla na nga ci jëlee ndam. Hmm. Balla yàlla na ko euh, victoire bi jig Tapha nag mbër mu yaru la alaaji man mas naa ko am sens hmm. dégg ko benn yoon. Hmm. mais ku ku yaru la. te kuy déglu li xew ci réew mi la. waaw kon Tapha ñu ngi lay ñaanal yàlla bu baax a baax. xam naa saa day imu day day day day kii rek waaye macha allah Tafa sunu suñu la. waaw waaw nit ku baax la ayca ñu dem ci euh, nomination yi nga xam ne waa loolu jege nañu de. jege nañu Aliou ma yaakaar damay ragal mu ful ma affaire yi parce que bënnam yi mi ngi yow la toll lool man la toll lool waaw mais bu kawe la bu kii moom seize xanaa day jékki-jékki rek fële nañu. <laughs> waaye bu doon tànk yi. tànk yi looy yër <laughs> non Aliou fële la war a bënn lu muy fii fii fii nga toog. balaa dem est-ce que Modou na ko fi muy balaa dem nañu bënnal fee rek jërëjëf